Euh, alors euh, exactement par rapport ak jaajaaxu ki n'a xam que modi di Sabassy euh, ni mom dina daal di war a wax li nga que ak walu mom ki nga que modi qui est li que tribunal depuis li que mars 2023 dans la capitale du sud il jouit d'une très bonne réputation fa jaar euh, bu baax kenn dootu ko naatable kenn dootu ko li nga xam ne que moo di douter par rapport ak lu am solo li nga xam ne itam liggéey na ko euh, ce tribunal bu euh, qui rappelle qu'il a à son actif la libération de la plupart des personnes arrêtées dans le cadre des affaires relatives aux manifestations politiques

Euh, ki nga xam que moo avant muy daal de rejoindre li nga xam modi tribunal euh, bu instance bu li nga xam modi moo euh, mm, n'est qu'on aussi ce tribunal d'instance bu Koungheul moom moom foofu la doon jiite à tout atub 2018 qui li nga xam nekk modi 2023 ma ni kon nag foofu tamit bayina na fa benn impression bo xamni tam itam rafet na lool manam benn réputation bu am solo la preuve poursuit euh, la population locale lui a offert un pot de départ pour magnifier son travail bu mu doon jógee fa nga xam ne itam mooy sax euh, askan wa doyalu ñu ndaxte euh, sagal ne ko gërëm ne ko bu baax baax baax ki nga xam ne que moo di Sabassy Faye moom mi nar a daal di atté ki nga xam ne que moo Ousmane Sonko jàppale ni tam bobu de magistrat mu ngi doon daal di officier fi ci Dakar laata mo daal di dem fa nga xam ne itam mooy ko Koungheul mom nak jamono ji moo fas yéene daal di li nga xam ne que moo chargé nix daal day réellement euh, sor Ousmane Sonko manam day bok wala du ma ni kon euh, ki nga xam nekk moo et Sabassy Faye euh, euh, toutes les yeux sont braqués sur lui ñu xool exactement le la war daal décider si ki n'a xam que moo di Ousmane Sonko maanaam ëllëgam à la suite de la décision du tribunal de Ziguinchor les parties ont dix jours pour faire appel aussi mm, si toutefois peut-être ñaanul ñu ko waa Pastef foofu suñ rejeter ñom tamit amaat neen 10 jours pour la def li nga xamne que modi Maudit appel donc mi ngi chers euh alors euh, tout en espérant que ñu euh, il va sans doute conserver quelles que soient les tentatives cette réputation si positive oui mais bien sûr parce que euh, conserver c'est-à-dire mm-hmm. que il faut que mon mu xool ken du ko jàngal liggéeyam qu'il énumérer jaar jaaram mm-hmm. euh, fu jaar amana, def fa fa le bu rafet maintenant euh, que dans la magistrature ay yu baax mm-hmm. le cas Souleymane ainsi beaucoup de juges beaucoup ba euh seen étiquette étiquette bu baax lañ leen collé donc ay ni que ay maïsra euh, yo une dañuy am réputation yu baax maintenant euh gis nga jaar jaaram depuis Dakar jusqu'à Koungheul en mm. passant par Koungheul ba mm. tay mo ngi Ziguinchor mm. ba légui à Ziguinchor déggoo fa lo euh, xamante ne ci voilà ci scandale ci touram da fay da fay da fay nek donc aujourd'hui euh, il peut dire le droit hmm. ñun waxuñu droit mooy maanaam da ngay far bu Ousmane Sonko tooñee mu xamal nit ki ni ni que Ousmane Sonko togn mm. tout simplement que ça hmm. bu fekkee Ousmane Sonko Mo am deug mais nako wax na wax ni Ousmane Sonko mo am deug mais man c'est comme ça man lu laa gisee. No na euh, ni bi non man atte na jaar yoon neex a dégg oh, contrairement ak le cour suprême ak la cour suprême c'est que man li mu wax kenn comprendre ko c'est que man hmm, man ci yar bu rafet lañ ma yaré hmm. man j'ai reçu d'ailleurs maa ngi nuyu sama parents de passage euh, euh, dama am non bien sûr il faut que il faut que ma nuyu parents yi. <laughs> yoo xamante ne def ci man. <laughs> yar yar <laughs> donc dañ ñun bu ñu xalé xale dañuy téré fen. Euh. dañuy téré sàcc. dañuy tere nettali même nit boo gisee dara boo bu bu xew booy ñëw di nettali sax sa yaay day dóor sa gémmen hmm. xam nga ndax loolu on l'a vécu en étant en étant petit gis nga yar bu mel noonu euh, boo ko amee dalay topp ba fi ngay liggéeyee dalay topp hmm. même boo demee ba am ba am métier boo ba commencé sa carrière dalay topp hmm. même nit bu la bëggee corrompre sax si tu as reçu de bonnes, éducations, de bonnes éducation, éducation boba, mais d'où monsieur dara. Parce que dara d'où fait ses ce, Même si demain sa bëgg bëgg jël xaaliss bobu pour nga nangu pour mu koram pour là toujours éducation bobu day ñëw tu yow da ngay interroger mais tiens man où sont mes valeurs est-ce hmm. que sama yaay sama pap hmm. éducation bobu lañ def ci man bo xolé lolu dafa manque hmm. actuellement la la population sénégalaise dafa manque trop ci les jeunes tu sais pourquoi il faut manquer les jeunes Mais regarde les jeunes qui cassent là, dans les manifestations. Les jeunes, qui ont des lampes, des am, 21 heures, les libérer. À 10 h 13 h 17 h ils commencent à agresser les vie. Même si vous avez dit ça, a là qui m'a agressé. Mais tu vas te dire non, non, non, de, qui Des enfants de 12 ans, de 14 ans, ils ont des enfants qui ont Mais ce sont les jeunes là, ils ont oublié, les taximans là les voitures profitent aussi ci embouteillage parce que auto yi mënuñu bouger dem di ubbi ay capot di xam ay pour pour menacer sen borom pour mën mais regarde cette éducation là regarde cette éducation là il y a il y a beaucoup à refaire dans ce pays il y a beaucoup à refaire dans ce pays man dama gis benn journaliste car peut-être pour ne pas faire la publicité des médias journaliste bi taxaw mais quand nous un président il a instauré l'éducation depuis le bas âge depuis le maternel changer les uniformes des élèves mu fait des uniformes militaires avec des bérets comme les les les uniformes ngay les écoles de formation militaire à l'école de formation des tout petits qui est à Kies mm-hmm. Britannique militaire mais pourquoi ne pas changer de paradigme moobu dugal ko ci biir institution école élémentaire bi depuis le bas âge changer l'uniforme le colon le mu en défi nous changer ko faxas ko jël ay école sous forme des écoles élémentaires sous forme militaire nous éduquer xalé yi non juste une fenêtre juste fenêtre bima ma pour wax la ci éducation commencer gis nga éducation bu commencer lolu hmm. métier bo dem Sénégal dans l'avenir on dañuy am ay nit yu ba ci magistrat bi ngay wax ni ben magistrat kenn du ko parce que bu jaaree ci éducation da fay djub da fay djub da fay atte ci lu djub mais aujourd'hui dans regarde-moi euh, l'administration est paralysée. Hmm. personne ne s'occupe de la population la population est que c'est comme si elle est abandonnée. regardez les politiciens là qui forment leur gouvernement yo xamantene ken xamul lan la la lo qui dina jógee est incompétent de ce qu'il a fait non seulement il n'a pas fait defu fii liggéey mais il mu jógee fii dem ci ministère pour semer le chaos là-bas il fait déjà le chaos ici non mais bien sûr. ah parce que dem est ne retour non, mais lola. là. Euh, retour est daal bëri na mais retour mais loolu des <laughs> ministres qui font le chaos ici sénégalais coow Mekour, pareil court pareeguñu nous déplacer leen ci ay yeneen ministère c'est pour qu'ils font le bor ils font le chaos là-bas. mooy m'a Madi Kenya lu ma doon wax en 2019 dama demone Koungheul toj fa dem xaw fan kaw la ko toj fa ñëw fii ne ko rajax c'est comme si la nomination de ces ministres là c'est comme ça dafa dem ministre de l'intérieur, intérieur fa dem fele toj fa dem ministre des forces armées toj fa aujourd'hui dem ministre de la justice toj fa aujourd'hui mu ngi ah, euh, ministre des affaires étrangères ne ko fa rajax mm. dakoy koy da koy da c'est comme ça c'est comme si lolou moy wane ni que faalewuñu sénégalais yi faalewuñu sénégalais ils n'ont pas besoin de cette population là xam lan mo len animé nan lañuy def ba falu lan lañuy def ba ñu continuer di conserver sen privilège bobu sen mm. train de vie bobu mm. lan lañuy def ba conserver ko lolou kese mo len ñor aujourd'hui quand on revient de la question des maïsra, hmm. dama maïsra yi ba légui fa démé fekk fa ay yu ni secteur bon wala yépp bon non Moi, ma d'ailleurs fenêtre pour L'éducation l'éducation éducation bi mën na bi euh, éducation non éducation éducation wa hmm. secteur se dem nga administration il bureau boo mënti dugg fekk fa lu hmm. mais regardez l'administration sénégalaise. Hmm. nit ko xamanteni day 9h. ñi ñuy ñëw pour outil kayit à 8h pointe fa ñi ñee am ñom ñu 6h du matin la ñuy ñëw pour am positionnement bu baax. ku wara kayit bi moy manam boss bi mu ñëw à 9h. non seulement il est en retard par rapport à l'administration parce que 8h nga am droit xëy mu ñëw garé autom mu y dugg ci biiram mu ne foko mu naan café foko mu ba pare y non imagine bala muy jël c'est 11 heures 11h mu liggéey ba 11h, mu mu il est en pause regardez voilà aujourd'hui l'administration sénégalaise mais c'est ça alors que <laughs> ñi sommes dans la fonction publique ce sont les enseignants ce sont eux que seigneur respecter eux? enseignants et que seigneur respecter eux au Sénégal Ils ont euh, leur cours à 8h, ils sont à 8h. heure jot wàcc wàcc jot ñu wàcc. xam naa fenêtre yi nga tijji bëri na. non mais si loolu mooy wane que man li may wax gis nga li may wax ah, nii. c'est clair sénégalais lambda bi loolu lay wax mais amaana yàlla may ñu ñëpp ñu toog ci plateau. pour wax ko c'est clair c'est clair c'est à nous. sànq maa ngi gis benn benn euh, suñu benn ndeesaan. Mm. Euh, internaute. mu mm. ñuy kaañoo ci clash ci kii bi. muy naan même les journalistes on contribué au chaos à cette situation chaotique de ce pays. Mm. regardez personne n'est épargné aucun secteur n'est épargné. Nous, avons japonais, Sénégal bu vous ba hmm. même journalistes ils font partie du système de ce système là. Hmm. les journalistes font partie de la situation actuellement de ce pays. Moi, personne n'est épargné malheureusement on est obligé de vivre avec. Hmm. même dans les journalistes en sachant que boo demee ci journaliste corps corps boobu. fekk fa ay journalistes yu baax. comme ni nga demee ci magistrat yi fekk fa ay ay yu baax. mais bu ñuy def l' dañuy tirer sur tout le monde. c' est Ali dëgg na li nga xam nekk moo di euh, les